mbir yi nga xam ne day yàq lislaam day génne nit ki ci diine lislaam te mbir yooyu fukk la cheikh Muhammad indi ko ci daldi koy tënk ci benn mbind lu yàq lislaam nag ëpp na fukk waaye xëy na cheikh bi rahimahullah dafa indi fukk yoo xam ne ci la borom xam-xam yi dëppoo indi fukk yoo xam ne ci la borom xam-xam yi dëppoo comme ñu teewlu ko incha allah ñu jëm ko tënk ba nga xam ne dina neex a déglu cheikh mu ne alam anna nawaqid al islami ashra nawaqid aw nawaqid la nga xamne yi di yàq l'islam fukk la lii di yàq l'islam fukk la cheikh bi nag mboole mu téré da koy tàmbale i'lam soo démé ci qawaid al arbaa wala ko dem ci kashf kashfu shubahat al usul thalatha ndax dafa bëgg fatali i'lam moy xamal xamal dafa bëgg fatali ki di lire wala ki muy jàngal mu xamni li xam-xam la na ci baye xel mu ne yii di yàq lislaam fukk la mu ne al awwal bu si njëkk ashirku fi ibadatillah moom mooy bokkaale yàlla ci ay jaamu bokkaale yàlla ci ay jaamu lii mooy lu gëna rëy luy màbb diine lislaam bokkaale bokkaale ci xamale bu gàtt moom mooy nga jël lu yàlla moom jagoo ko nga jox ko leneen lu dul yàlla nga jël lu yàlla moom jagoo ko nga jox ko leneen lu dul yàlla moo xam ki nga koy jox nit la walla jinne la walla chose la wala gàncax la lépp loo jël lépp loo xam ne yàlla dong moo ko jagoo kese nga jël ko jox mi def loolu bokkaale la moo xam ci jëfu yàlla la wala ci jaamu yi jaamu yàlla la moo xam ci turu yàlla ak melokaanam masalan taw ñépp xam nañu kenn doo nga mën a taw mooy yàlla mooy wàccee taw loolu jëfu yàlla la soo ko jëlee jox ko mbindeef bokkaale nga yàlla bokkaale bu lay génnee diine lislaam boo ne diw mii mooy borom na taw mu taw danga jël lu yàlla moom jox mi def danga jël lu yàlla moom jox mi def ndax loolu jëfu yàlla la moom kese ko jagoo su boobaa boo fasee loolu gëm ko nga jël taw bi askane ko keneen nga askanale ko keneen yow génn nga ci diinal islaam ndax jël nga lu yàlla moom jox ko keneen lu ci mel ni sàkk jour boo gëmee ne am na keneen kuy sàkk ku bokkut ak yàlla di sàkk ay jaam di sàkk ay bàyyi ma lépp lu aju ci sàkk nga gëm ni am na keneen ku koy def donte gëm nga ne sax yàlla da koy def waaye da nga ne am na keneen tamit koo xam ne mun na ko def su boobaa bokkaale nga yàlla ndax danga nga jël lu yàlla moom jox ko keneen ndax loolu yàlla dong moo ko jagoo mbindeef mënu ko nit ki noonu bokkaale dina nekk ci ay jaamu yi ngay jaamu yàlla maanaam jaamu kenn dong ko jagoo muy yàlla. julli woor joxe azaka aji màkka sujjóot loolu kenn doo ko ko jagoo muy yàlla mathalan jour boo jullee wala jullilee keneen ku dul doote da ngay yàlla waaye da ngay jullil keneen ku dul yàlla bokkaale nga ndax jël nga lu yàlla moom jox ko keneen ndax loolu yàlla doo moo ko moom jaamu yàlla dong lañ ko war a defaral niki ñaan ñaan soxla soxla boo xam ne yàlla dong ko mën a faj comme nga bëgg am doom nga ñaan pour am doom wala ñaan pour am mujj bu rafet mathalan loolu yàlla dong moo ko mën a maye ñaan ñaan loo xam ne yàlla danga ko mën ñaan boobu nga jël jox ko keneen nga dem ci keneen moo xam ab sëriñ la wala ab malaaka la wala ab jinne la nga dem ba ci bàmmeelam wala dem ba fi nga ko fekk sax moo xam muy dund nga ne ko sëñ bi kat man maa ngi lay ñaan nga may ma doom aw ma doom loolu soo ko defee daf nga bokkaale bu mag ndax da nga jël lu yàlla moom jox ko keneen ndax loolu yàlla nga ko mën niki noonu bokkaale dina nekk ci turu yàlla ak i melokaanu yàlla nga jël tur boo xam ni yàlla nga ko jagoo ndax tur bi la muy firi la muy firi moo tax tur bi nga jël ko jox ko keneen ku dul yàlla bokkaale nga yàlla lu ci mel ni allah allah lu muy firi mooy ku ñuy jaamu mooy ku yelloo jaamu ku yelloo jaamu mooy yàlla yàlla doo nga yelloo jaamu allah boobu nga tuddee ko mbindeef su boobaa bokkaale nga yàlla ndax jël nga lu yàlla jagoo moom ko jox ko mbindeef ndax loolu yàlla doo nga moo ci am sañ-sañ comme euh, incha allah ñu fii euh, dars bii di ñëw incha allah ñu daal di koy àggali comme loolu mooy lu njëkk mooy bokkaale yàlla mooy lu njëkk ci li nga xam ne day génne nit ki diina lislaam euh, dars bu ci topp dinañu wax nag indi tegtali addilla yi ci alquran ak sunna yu wone ni euh, preuve yu wane ni bokkaale day génne nit ki diina lislaam wallahu alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammad